salaamaaleykum wa rahmatulah euh, waa Vision gi askan wi seen serviteur Clédor seen mooy ñëw di leen euh, defal benn mise point rek ci benn audio boo xam ni euh, xëy na di ngeen ko jot xëy na jot ngeen ko déjà boo xam ni Pape Moussa Sow membre Claire Vision moo ko fuité ci benn waxtaan bu mu amoon ak man parce que daf ma woo tey ci dimanche ji ci ngoon doon ma invité parce que moom day liggéey ci benn site internet Dakar 221. buggoon ma invité jotaay mardi euh, ci site bi ma ni ko mardi nag euh, du mën a nekk parce que xam ngeen ni mardi ci la ci la xeex bi di commencé parce que ñëpp yëg nañu ni euh, ñoom ngi Mari ak ñu àndal woote nañu manifestation le vingt 24 te le 24 mardi la ci loolu laa ko gàntale mais lañ ci waxtaan yëpp nag après mu wesaare ko te lim ci jublu. mooy euh, indil may jafe-jafe rek maanaam ñàddal ma <laughs> nguur gi pour ñu rendi ma parce que fi mu nekk nii euh, ku ku daaneel Clédor moom euh, sa affaire dina baax lool lool lool parce que ñoom dinañ ko bëgg lool lool lool donc moom juriste la li muy def xam na ko li mu ci jublu xam na ko waaye yàlla moom mooy sottal Pape Moussa Sow doomu meer na fi la Euh, membre la Claire suñu premier age ñëw na ba bokkoon ci commission euh, communication donc euh, moom moo def mbir bu ñaaw boobu pour jébbal ma yoon parce que gis na ni waa ab waa kër Sonko yi ñu bëri li ñu leen jàppee ay audio la ay audio ci lañ leen accusé jàpp donc moom jàpp na ni am na lu ma lu ma sànkee Euh, mais comme j'ai dit tout à yàlla mooy sottal euh, dafa fekk rek ni moom dafa dafa amul jàngat bu bu xóot parce que man dama wax ci pénc bi daj def conférence de presse dajale télé yeeg rajo yeeg presse en ligne beeg yëpp wax Sénégal yëpp di dégg fii ba bitim réew ni ñun dañuy organiser ay comité de résistance ci koñ-koñaan yi ci dëkk yi yëpp pour fas yéene taxaw jàmmaarloo ak nguur gi loolu def naa yéen ñëpp dégg ngeen ko parce que nee naa leen ci jàmmarloo laa jëm yem ma ci dañuy créer ay comité de résistance kese ma teg ci ni su président Macky Sall toppee projet bi ba mu sës maanaam s'il va jusqu'au de sa on va sonner l'insurrection maanaam dinañ woote fipp loolu it dama ko wax mu leer te lu jiitu conférence de presse bi man wax naa ko def naa live fii euh, bi ñu naan. Euh, Euh, collecte de fonds yi waa Pastef di def dañ ci dañ ci dissoudre Pastef euh, woote na pour pour ñu organiser ay comité de résistance euh, appel à l'insurrection waxoon naa ko bu Macky defee troisième mandat donc lu ma yàgg wax la te ci lii lii lii lii ci àllikale gi dama ko wax mu leer te wax naa répété naa ko ci ay télé yu bëri donc lu may nëbb lu ma fësal la lu ma wax ci pénc bi la léegi loolu su mu ci wax koo xam ne man dama ko jàppee sama rakk dong mi Pape saa ci biir néeg mu siiwal ko jàpp ni loolu mën na ma cee sànq xayrun euh, dama leen di xamal rek ni euh, seen serviteur euh, du ko woyof bopp du ko ñàkk expérience parce que 88 ba léegi maa ngi ci terrain wu contestation bi 88 ba léegi maa ngi ci waar régime yëpp pratiqué naa leen alors nit boo bëggee dara dalay jaral dara Euh, man xaruma li ma wax ci rajo ak télé yi xam naa li ma ci mën a fekk dama ko assumer dama ko assumer penalement dama ko assumer totalement moo tax ma wax ko mu leer kon képp ku foog ni euh, génnee samay audio yi naan damay organiser résistance ak euh, mardi am na ñu woote pour pour xeex yooyu tout ça jàpp ni xëy na mën na ma cee sànq man li may def. dama ci sooraale li ma ci mën a fekk ba mu jaral ma ko ba pare ma doog cee dugg dama xam droit ni moom mi ko jàng ba pare ba xam li ma mën a fekk ci li may def yëpp muy assumer sama responsabilité pénale ma doog a dugg ci li may dugg kon lii laa buggoon euh, waa Clair Vision xam ko euh, euh, pour dara bañ leen bett pour ngeen xam aussi mbir mi fu mu jóge parce que man duma sax dugal ci panel bi audio moom pour attacher ko ak bi mais man sama bos rek doy na kon lii daal mooy mise au point bi mu leen indiloon pour ngeen xam mbir mi euh, fu mu jógee luñ ci jublu euh, ñun ñu ngi nekk ci combat boo xam ne lépp luñ ci def nag xalaat nañ ko li ñu ci mën a fekk xam nañ ko donc euh, ñun ñoo woote suñu woote assumé li ñuy assumé kon soxla soxlawuñu kenn di ñu siiwal <laughs> ay waxtaanu biir nekk loo xam ne wax nañ ko ci penc Sénégal bi wërngal këpp dégg ko. rawatina àddina bi yëpp dégg ko sànq rek lañ ma interviewé ci benn rajo Pikine Diaspora waxaat naa ko fa démb lañ ma invité Thiès ci benn télé euh, Prestige TV waxaat naa ko fa waaw donc euh, du benn yoon du ñaari yoon.